ne Alioune Tine yëkkati na ko <laughs> yow loo ci jàngatee ndax dafa jàpp ne euh, ci nomination yi appel à candidature yi ñu waxoon defuñu ko wala dafa gis ni euh, euh, daanaka tey ni ñuy doxalee waa Pastef lépp daf leen favorable d'abord damay nuyu Alioune man mhm. sama doyen la mhm. te daf may daf may bëggee bu baax mhm. dama koy nuyu parce que Alioune il faut ñu xam ni nit ku am parcours la dans mm -hmm. la mhm. société civile mu nekk acteur majeur ci bi nga xamante ne bii ñu ngi taxawal M23 mhm. ñu jàpp ko ci su ma juumul brutaliser ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom à l'époque procureur Ousmane Diagne moo nekkoon moo fi nekkoon bu toppoon ñi nga xamante ne bii ñoo jiite woon dëkk bi ci jamono yooyu. dañ ko waroon jàllale. mais procureur Diagne actuel ministre de la justice dafa bañ. yaa ngi dégg. oui. émettre na opinion. man dama koy respecter même si wax dëgg na yàlla c'est objectivable ah parce que euh, état Pastef dama xamul. est-ce que du ma bàyyi ba génn woo ko laaj ko ba xam moom lan la ci jublu parce que état passif bon d'abord état passif. état pacifié. waaw état pacifié. lan la ci jublu dégg nga tubaab na xam nga li bëgg wax. non non attends non bàyyi ma rek ngoone bàyyi ma rek ma wax sama xalaat xam nga bu dee par exemple nomination yi mën nañ ci émettre ay jugement ci nomination yi appel à candidature amul euh, même si booy nommé da ngay nommé koo xamante ne bii da nga ko wóolu très honnêtement. Mhm. mu répondre quand même à des critères de compétence présumés effectivement présumés encore une fois yaa ngi dégg nga jox ko léegi nag bu doxalee baax na bu doxalul nga relever ko bu dee dañu xool nag de manière général oui. nomination wax dëgg am na ci ñoo xamante ne bii ci lu ma xam mosuñu def politique le général biram Diop ci li ma xam mosul def politique <laughs> le général Jean Baptiste te du poste boobu kese lañ ko proposé woon. Mhm. Makhtar Cissé a failli être ministre de l'intérieur te il a servi le régime de Macky Sall. oui on est d'accord. a failli. ah bien sûr. comment ça. ah si. loolu wax naa ko kay wax naa ko c'est que moom moo bëggul mais. mënoon ah, na nekk moom moo décliné seen offre voilà il a failli être tax ñu indi Jean Baptiste. bon man daal ci lu ma yëg moom. Mhm. moom naroon na nekk ministre de l' mais moom bëggul il a préféré dem IGE dellu IGE quoi en tant que vérificateur je pense bien. donc am na ci ay fortes têtes yoo xamante ne bi tey ñu ngi ci gouvernement bi. Mhm. wala ñu ngi ci direction yi wax dëgg neex yàlla même bu dee dañu am mouvement. Mhm. un mouvement fusionnel dans Pastef wala dans la coalition de Diomaye. Mm-hmm. ils ne sont pas d'obédience progressiste pastéfienne du tout léegi nag li tax moom mu émettre jugement boobu moi je pense que ni ñi muy waxal nañ ko jël en compte positiver avancer bañ fee nekk di bi ay front parce que jaru ko bu dul dara sax mag la ko au fait. Mm-hmm. on est d'accord. moi je pense que ni bu ñu eb moom bu émettre loolu ñoom nañ ko jël en compte gën a améliorer wu jàpp ni doyen la. jàpp ni en réalité waxam aussi bon mën na defar comme aussi tamit mën nañ jàpp nii bon c'est son opinion après ñu avancer ko man xam nga lu may bañ comme li fi amoon c'est-à-dire boo émettre idée ay nit taxaw di la saaga man loolu laa en fait loolu laa d'accordul quoi parce que soxna si bu ñu d'accord ne dañu am république ñu am liberté d'expression te bu ñu fàtte ne trois ans yi weesu selon le classement de RSF Reporters sans frontières sans frontières Sénégal dafa jóge ci quarante neuvième place ñëw ci quatre vingt treizième ou bien quatre vingt quatorzième boobu régression mais soxna si c'est énorme les gars mhm. dañu dellu gannaaw ba yëg ko lu ko waral waaw ah, mais parce que y de des de de des des des de des répressions y avait des brimades jàpp ay a menacé ay journalistes euh, activistes yoo xamante ne bii ils sont payés je pense au live ou bien aux déclarations fracassantes ñuy saaga journalistes yi et cetera et les journalistes n'étaient pas protégés et cetera loolu ñëpp xam nañ ko soxna si ça c'est connu ça léegi nag pour ñu bañ amaat wala ñu dundaat sentiment bu mel noonu képp koo xamante ne bii man pour man nit. saa boo waxee wax joo xamante ni bii saaga woo lu la nit ñi déglu quoi mais man sentiraguma amaguma perception que ni on a un état pastefien très honnêtement te yow Nabou Cor yow xam nga ma ci ñime xam nga ma ci en fait yow xam nga ma quoi en fait. Mhm. on est d'accord léegi nag comme moom wax dëgg na yàlla wax na wax ji mu wax bon. mais est-ce que aussi mënuñu jàpp ne compliment la. compliment waaw jóge ci état bu agressif. waaw dal ci état bu. parce que ñaari corps ñaari corps. voilà te bu ñu traduire passif mooy nit koo xamante ne ci deux mois dox nga ci jéego bu dëgër. loolu laa bëggoon wa parce que ñaari corps tey jii pour nga confronté leen. Mhm. il faut dañuy xaw a neexoo. mais munoo jógee ci agression après nga ne pacifien alors que pacifien jusqu'ici les mm. grammairiens ou bien les académiciens français dugalaguñ ko ci dictionnaire c'est du néologisme on est d'accord oui. <laughs> finalement ba pare boo taxawee ci olof kese mais mm. passif mooy koo xam ne dafa am itte waaw te ñaare boo foofu dafa may permettre képp koo xamante ne passif mooy ku farlu maanaam ku am itte mooy ku farlu te ñaare da am élévation gis nga soxna si man su ma amoon entreprise bu may sponsoriser damay sponsoriser ma ñi may sànni. Mhm. parce que ci nga yëkkatiku. Aboubacrine Saddiq dafa amoon ko ko doon wax wax ju ñaaw yonent bi fekkee ko. Mhm. ñu dem ba ci yàgg abu Aboubacrine tontu yonent bi ñëggal kanam ki mhm. ñu laaj ko lu tax mu ne parce que ki ko doon wax safaan. bi mu ko koy wax Aboubacrine fii ak mu ngi doon noppi malaaka yi. di ko ñaanal muy gën di yëkkatiku. Mhm. yàlla di ko gën a defal yiw bi mu tontoo nag ci la loolu dakk soxna si moi je pense que ni aujourd'hui ñi nga xamante ne ñoo accompagner ñii. Mhm. ba ñu ñëw au pouvoir mais il faut que ñu nangoo dégg lu neex ak lu naqari sarit soxna si Serigne Touba bi ko gaa yi di jël jeewal moom la neex mu ñëw jeewal parce que mais Touba bu xatul mu baax la fii ak mu ngi fa doon nekk. kenn du ko fa mënal dara il a écrit il dit ayasa minillaahi inde jéewali mm-hmm. iblisu isna daytaho bi en réalité bi ñu koy jël mu ànd ak ñoom assiru maal abraari hiina assiru mu ànd ak ñoom jamono jooju bu ñuy séddale reer ci li ma xam man mm-hmm. gëstu ko bu ñu tàmbalee séddale reer timis fajar la fajar la pare mbooloo mi bari na gaa ñi gëm nañ ko bu ko neexoon mu taal jihaad xeex ak mm-hmm. tubaab bi mais pour pourtant dafa dem ñëw indi ndam mais daf leen baal ah def leen baal en réalité moi pense que ni aujourd'hui foofu la ñu war a inscrire suñu démarche te loolu mais il l'a hérité du prophète mm-hmm. yonent bi sànni nañ ko xeer dama ay bëñam yàlla ni ko ñaari montagne yi boo waxee ma mabal ko seen kaw mm-hmm. mu ne ko yàlla baal leen fa innahum laa ya'lamuun xëy na ñoom xamuñu ñoom ñii bu ñu ma gëmul seeni sët sëtaat sëtaat yi danañ ma gëm mm-hmm. mais mënoo gat sa gàtt sa ba jël nguur gi continuer ci boobu dynamique autrement dit il ñuy pardonner il faut ñuy nangoo dégg lu leen naqari muy Alioune Tine muy Ngone muy sëriñ ñun ñi fi toog ñëpp amul kenn koo xamante ne bii ragal nga ci ñun amul mm-hmm. yaa ngi dégg donc pour man yenn critiques yi dafa teel encore une fois yenn wax yi teel na donte nag am na yoo xamante ne moom daar daar lañ koy lañ koy daal di wax daal ci leneen loolu yeneen moo ñu ko jàngal ku ko def ci penc mi wax leen ko ci penc mi ku ko def ci biir nekk wax leen ko ci biir nekk mais avec la forme et la manière. Mm -hmm. moi je pense que ni état agressif état agressif ak état pacifié déjà ñaari force la walla ñaari corps la yoo xamante ne bii ils vont pas ensemble. bi agression la violence la état pacifié c'est quoi da nga nommé ay nit mii am na ñoo xamante ne aujourd'hui mais ñu ngi ci gouvernement bi mais mais en général da nga ko mos a dégg mu politique te dañoo yor ay post hautement stratégiques mmh. on est d'accord oui Macky toog na fii ñu ne ko est-ce que doo jël Aly Ngouille Ndiaye nga changé ko mu ne ko du ko def du ko def du ma ko def <laughs> te boobu moo yor élection yi voilà. Mhm. on est d'accord mais tey ki nekk ministre de l'intérieur c'est un général il était ambassadeur en poste à Moscou oui tey ki yor forces armées mais c'est un général éducation Guirassy moo ko yor ñoo xamante ni bi ils ne sont pas de Pastef à ce que je sache même si il a été directeur de euh, campagne de de de en mhm. moi je pense que ni aujourd'hui daal il faudra que ñu continuer ci dynamique di fàttali. Mhm. tu comprends. Mhm. ak di leen euh, rappeler seen i engagement seeni i projet parce que actuellement ñoom ñu ngi ci terrain bi gis nga li tax entraîneur baax. Mhm. moom day gis le plan cest à plan bi ni muy gisee terrain bi yow mi nekk en action en mouvement doo ko gisee. doo ko gis ñun ñu ngi ci touche bi di fàttali. mais man jusqu'ici wax dëgg na yàlla amaguma sentiment. que ni on a un état passéfien. donc Alioune Tine bu waxee ni c'est un état euh, plasticien hmm. même si c'est un critique gouvernement bi dañ ko war a déglu. mais dañ koy déglu non soxna si Alioune Tine dafa am parcours soxna si. Hmm. Hmm. Alioune Tine région bi dañ koy déglu. dañ ko soxla et cetera et cetera. mais encore li may bañ mooy ay jeunes taxaw fële di def live di daal ci kawam. loolu moom non non en fait li may bañ laa wax li may bañ ngoone dafal ndànk rek li may bañ. nee na li mu bëggul mooy réew mi que ñuy favoriser la pensée unique. Euh, il faut ñu débat quand on émet des critiques. soxna si alors ci dans le sens du gouvernement am na sañ-sañ def émission am ah, dem x bind ko foofu. Mm-hmm. am na ci droit quoi c'est-à-dire daf ci am droit. waaw léegi est-ce que nit am na droit tontu ko tam xalaat boobu mu wax. yow yow loolu nga def di. waaw moom laa lay wax mm-hmm. sànq xam nga da nga ne. man man saaga laa wax. saaga kenn dàqoo ko fii ku taxaw saaga ñu taxaw saaga la. <laughs> non doo saaga rek ay problème rek. waaw xam nga man moom ku ma saaga man baax wax di saaga moom loolu amul. ko ku ma saaga man baal naa la. kawe waaw d'accord baale man baale wu ma. man moom wax dëgg na yàlla ku ma saaga baal la xam ne Alioune Tine c'est mm-hmm. am na am na parcours loolu moom kenn du ko dindi. Mm-hmm. waaye bu waxee loo xam ne xalaatam la. foog naa nit war na moom tam wax loo xam ne noonu la xalaatee. ba pare ba pare loolu d'accord nga ci. ba pare <laughs> ce que xam nga ne. bàyyi naa. lii ñuy lii ñuy waxtaanee.